bismillahi rahmani rahim wante jaaxle dana tax nit def lu nekk mu wuti nag kër najaayam ba ñu yëgee ni fële jëm ñu jiitu ko mii ne dëkk ba yépp wax leen ni ndaw la loo xam ni daal dafa bare solo nekk ci biir xeer yi moom rekk ba jinne feeñu ko yàq xelam mu bëgg fee ñëw kon nag bàyyi leen ko xel ba mu demee ñu sëllëx ko suuf sànni ko doj dàq ko ba mu demee ba ca gannaaw dëkk ba benn mbokk fekk ko fa muy nàcc mu dindi kaalaam fomp ko ni ko man chrétien la dama la xamal ni boo xamoon ki ñuy tuddee ay ibnu Maryam li mu daj kon dinga nga gën muñ e mu wax ci làmmiñam ni boroomam gis nga lii su ko sa mer lalul rekk jàmm la waaye nag xaj naa ci sa yërmande waaw waaye nun ñëpp yërmande yàlla lañu ñu xaj yàlla nu yàlla dugal mu mel ni kon nag bés bi fa yàgg si noo àggale tubarkal la bu mel na ko nag bés bi bésu barke la bésu leer la wante itam tontu la te it li ci bi wax boroomam ni ko jaamu gi nga bëgg ci sa bopp lu ma ta bàyyi xel ndax jaamu gi jaam bi yéene boromam jaamu gi borom bi yéene boromam a ko ëpp doole moo tax jaarale sa jaamu yàlla ci yonent moo ëpp doole nga jaarale ko ci pexe waawaaw moo gën nga jaarale ko ci pexe jaarale ko ca na mu ko bëgge ndax mag mën na am loo ko yéene soo ko ko joxee fekk na doktoor tere ko ko waaye la mu yéene boppam nag moo ko xam ba tax na jaamu gi yàlla yéene boppam Sayyiduna Muhammad defal na ko ko ñi mu am defal nañu ko ko dafa fekk nag bakkaaru nattale dafay am bakkaaru nattale mooy yam ci dex ni mooy yàlla walla yem ci nag ni mooy yàlla walla yem ci guy ni mooy yàlla kooku mooy bakkaaru nattale moo ne dana ko fay sax ci ni mu ko waxee waaye boo jàppee dex yàlla du la fay lu ëpp jën waaw boo jàppee nag yàlla du la fay lu ëpp béjjën waaw boo jàppee buy guy guy laa wax yàlla du la fay lu ëpp buy waaw boo fekkee guy nga jàppe ko yàlla du la fay lu ëpp buy waaw lu tax innahu xakimun alim xakimun ku xeriñ la ci fay te alimun ku xam lu ñu ko lebal moo tax nag boo jëlee yàlla ci boppam nag jàppe ko yàlla mu faye la boppam moom la defal yonent bi ak njabootam waaw mu mel na kon nag bakkaaru nattale am na ndax it wa ma qadarullaha xaqa qadri lëf la sa yajzihim wasfahum lëf waaw li nga nattaleel sa bopp rekk bokkul ak li mu wàcce moom ni moom noonu la mel te ku yebu rek nangu am kilifa te yem ci kuddu nag ñu rof la ci mbaf ngu su ko defee doomaadama ci boppam dafa di xejj li ngeen tudde xejj xejj boo gis am na noonu uh-huh. ndax fa la yu battikunna aadaan al anaam ak fa la yu xayirunna xalqallah lu ko sabab moo di seytaane nee na yàllaa ko waxal boppam nun mënunoo ñàkk gëm seytaane ndax tudd na ko ci alquran seytaane nee na yàlla alak ngëm ma alage mooy da nga am xejj xejj bi li nga ko sédd li ci ëpp solo mooy xel may ma nag ci sa mbaax man comme topp naa sama ñàkk pas-pas ba nga alak ma may ma xejj bi fu ma ko fekk mu ñàkk pas-pas may ma ma alak kook ni nga ma alak mu jeex tak mu ni ko soo ma nee waaw rekk danaa la wax lii doonte jox nga ko xel mën naa ko nax ba bu amee nag bu dugg ci biir nag yi bu ko bëggee xàmme xelam dana ko réer ba du ko takkal lam du ko takkal morso dafay njoof noppaloo lépp dugg na ci ndaxitam yàlla bind bindam ni mu rafeti sédde la ko nga bëgg a xam ne mbind ma tax nga nga njoof nopp ba lépp dugg na ci xamuloo ni soo gisee yenn réewi jullit yi di jëfante lu ñaaw wala yenn mbooloo jullit yi di jëfante lu ñaaw c'est dafa dugg ci cadre boobu bu yàlla soppee sax su yàlla soppee xelu seytaane seytaane soppi sa xel rek sa mantiq réer la sa mantiq nag réer la waaw dañuy ñëw jàpp la ngay xataraayu foo jëm ci kaw diw laa jëm lu tax nga jëw jëm ci kawam doo ko lay yu mukk ba mu sotti lu tax dañu soppi sa xel de nga bokkal yàlla bokk ak moom yonent bi boo xalaatul lu dul jël ba kanam am na ku dugg am na nag ku dugg parce que jaaduwul waaw te it xam li nga am it baax na mooy tax nag koo ko bokkal nga sopp ko am daal lu gën lépp te koo ko bokkal mënuloo ko sëpp booba am na ku dul waaw ndax al imaamul busri ci tukkeem ba du tukki dëgg-dëgg wante tukki xayaal la te ñoom seen tukki xayaal yi daañu ci yeete nee na ba mu dugg ci benn tool nee na tool ba mu daje cag ñaari sang ak benn noon nee na bii sang mu ñëw nuyu ko ni ko yow a kan mu ni ko mën a Azraïl mu ni ko lu xew yaa ngi yërëmtalu mu ni ko yàlla daf ma sant may faat bakkan ma topp ca ndigalam mu yabal benn yonentam bu ñuy wax muhammad salawatullahi alayhi ajmain nee na mu jàngal nit ñi jikko ba ku ma faat bu ñu la suulee ba noppi su ma dellusee ca kër ga fekk nga dundaat ndax sa jikkoy dund sa gannaaw mu ne ko moom a tàyyiloo ndax ku ma faat rekk bu ma dellusee ca kër ga fekk jikkoom dund xarit ya nekkaat fa wóllëre ya nekkaat mu mel ni dafa wékk mbubbam rek dugg ci biir dugut socc walla leneen doo yëg ni dem na mu ni ko te ci jikko rek la ko teg mu ni ko ci jikko rek la ko teg mu dox ba ca sang ba ca des mu ni ko yaay kat mu ni ko maay Israfil mu ni ko lu tax nga yërëmtalu mu ni ko man kat dafa daan def àdduna bu mu bëgg mu tukki dafay wax ni naa gëdd àdduna ba ci sama baatu autorité moo ko gëddee rekk muy lox di dellu cosaan ba ba muy nekk poussière jeex takk mu ni ko wante rekk mu yabal benn yonentam bu ñuy wax Muhammad salawaatullahi alayhi ajmain mu ni ko waay lu xew man sama baatu autorité laa waaye ku ma ciy gëdd dootuloo ma déglu mu ni ko lu tax dootuñu la déglu mu ni ko dañuy déglu quraanan ajaban yahdi ila rushd mu ni ko jikko dugg autorité génn léegi baatu jikko lañuy ñuy déglu waaye dootuñu déglu baatu autorité boobu ndono ku ko amee am na la war a bàyyi xel mu dem ba ca noon nag noon ba nag ni ko yaaykat mu ni ko may iblis mu ni ko yow làpp nga di mu ni ko na may def sama yaakaar dafa tas mu ni ko lu ko tas mu ni ko yàlla bi mu bi mu falee xejjam rëbb ma dama am fu ma ko doon ëkku man itam moo de am na ku muy yónni ci ëllëg Muhammad lañu koy wax mu ni ko dana ko sédde guddi rañaan mu ni ko guddi rañaan dana ko sédde fas bu ñuy wax alburaq mu ni ko nit kese mënu koo war ba wàcc te bewul mu ni ko ma doon xaar nag bu ca jógee ba wàcc si ba bew nag nee na ma reetaane ko yàlla reetaane ko muhammad nee na ba mu jógee ca rañaan ga may yaakaar ni beew googu mënul ñàkk ndax am na loo xam ni nit mënu ko supporter ci teranga nee na soxla ba mu jëkk doxi ba mu wàccee ne ba mu koy doxi mbaam la war waaw xanaa kii li teraanga bi foor foor borom moo ko ko ëppal doole ba tax na ndono yooyu moo daje ci seen loxo yàlla jaarale ko ci wëy jur wëy jur yi nga xam ni ñoo fi nekkoon te alxaaji abdul aziz mii taxawe seen taxawaay takat dañu ne ki la jur ci ruux jur la ci diine moo ëpp doole kilo jur ci deret lu tax mooy li yàlla wax ci alquran ni ki la jur ci deret te nga ëpp ko xam-xam ci man bu la digalee lu ma bëggul ndaxanteel ak moom mu dem ta nga def li nga xam waaw ndax yàlla nag moo gën a xejj wëy jur ndax moo bind kon nag tey ci wàllu bàyyu diine ci wàllu bàyyi ruux rawatina ba mu ca raxee di bàyyi deret ndax kuñ ci tudd say maam du ñàkk fu mu dajeek ay maamam kon nag réew mi yëpp ñoo bokk waaw bari na ku jëw sa moroom jëw nga sa mbokk waaw bari na ku sa moroom ŋàññi nga sa mbokk danga koo xamul waaw bari na it ku jëppi sa moroom jëppi nga sa mbokk danga koo xamul dëgg la nag xaqiqa bu taxawee aada néew doole waaye aada bu ñu teg ci kaw xaqiqa mënatul néew doole nag ki nga bokkal ay maam ba noppi yonent bi boole leen yenu kooku aadaam ji mënatul tuuti loolu taxoon yonent bii li muy fonk fonk fonk xaqiqa daan na ci rax aada ndax xëy na rek ni eh, eh, eh, ana ibnul awatiki min sudayn loo ci man nee na bàjjeni lingéer yi ak tàntey lingéer yi nee na man la jur waaw waaw bàjjen yi ma am ñu juddu di lingéer am jikko lingéer ak tànte yi ma am ñu juddu di lingéer am jikko lingéer ne man rekk waaw booleeg ca des yépp mu mel ni kon nag xam sunu bopp dana tax nu noppal ko noppal sunu kilifa yi ndax kat mbokk moo bañ ànd nga ak xarit kon nag ànd ak mbokk ànd ak xarit moo ëpp doole waaw ànd ak mbokk ànd ak xarit moo ëpp doole mu mel ni kon nag yépp lu di ko yaakaar ci bëccëg bi bëccëg la boo xam ne ku ñëw ñu nàndal la kattan nàndal la leer yaay dem nag xam noo koy jariñoo waaw waaye ñëw kese kese jële fii rekk pënd taxul ñu def ko dañoo bëgg boo ñëwee mu wóor la ni nàndal nañu la kattan boo man bi yeesale pas sa pas-pas ba ba muy dellu nàndal nañu li yiw wu tax koo bëgg jokk man nga ko jokk waaye leneen nag taxul kenn ñëw fi fa tabarakallahu loolu rek mooy li fi nekk bés la bu tegu ci xaqiqa bu aada duggee it aada ba ci kaw xaqiqa la tegu ndax Cheikh Al Hadj Malick radiallahu taala anhu dafa ni woon ajjanay gàcce day na ma ci yàlla musal ñu ni ko luy àjjanay gàcce mu ne àjjana ju ñu la jiital jëme ca te naan la budul woon diw doo ci dugg dana àjjanay gàcce la ne Malick xaju ci waaw ma ni ko moo ne ñëpp de buñ ci jotoon sant yàlla ah àjjanay gàcce moo tee ñëpp nelaw waaye moom ne waxu ci dara bëgg na su dee am àjjana bu ko kenn tuddal yonent mbaa wëliyu moo ko ñaxal boppam waaw parce mhm. naa déggit benn mbokk bu laaj fii Serigne Babacar Sy ni ko loo xam ci koo xam ni bu tëddee rek gént gis nitu yàlla mu ni ko dafa jubagul mu ni ko jubati rekk a tax mu ni ko nitu yàlla yi boo jubee dootoo leen gis mukk ndax xam nañ ni yaay ñoom soxlaatu boo tëddee di leen gis mu mel na nag ah, xam naa ñi koy tiitaroo war nañ ci bàyyi xel waaw maa gént bi gis diw maa gént bi gis diw boobu da jubagul ñoraguloo bés boo ñoree dootoo ko gis ba saa dégg it mu ni bii jamono bu yàlla tegoon wilaaya teg xel tànn looma nee na ma tànn xel bàyyi wilaaya ñu ne ko lu tax mu ni wali yu gàtt xel dafay rusloo yàlla pour wax la ni góor góor rekk la yàlla na am sax yonent waaye li ko war na ko def bu ko defee ko nag bu tegoo ci àqiqa yëpp dox yëpp dox jikko bu tegoo ci àqiqa borom dootul am jot tu ko amatul jot man ngaa defal sa réew lu ne ku amul jot man nga defal réew lu nekk waaye boo baree jot nag ah xam naa la Ali ibn Abi Talib waxoon dafay dikk nee na yaakaari jigéen ak yaakaari ndaw neena yàlla daf ko fonk ba du ko jox góor gu am jot yaakaaru jigéen ak yaakaaru ndaw ni mu réy ci yàlla mu fekk koo xam ni du jóg ci koñ bi mukk waxtu woo ko rombee ba fa yàlla du ko jox mukk ndax du ko faj waaw du ko faj mukk ku am jot doo fajal yàlla dara doo fajal say bopp dara doo fajal sa bopp dara wata bakkaar yëpp yëpp am jot ci yées tabarkalla tabarkalla wata yonent bi séddale nit ñeenti jëmm jëmm ji mu tuddee ko ruux jëmm ji mu tudde ko xel jëmm ji mu tudde ko bakkan jëmm ji mu tudde ko yaram jëmm ji mu tudde ruux mu jox ko sopp yàlla ni ko sa dund ngoog jëmm ji mu tudde xel mu jox ko jàng ni ko sa dund jëmm ji mu tudde bakkan mu jox ko péex ni ko sa dunda ngoog jëmm ji mu tudde yaram mu jox ko ñam ni ko sa dunda ngoog bi mu jox ruux te mooy sopp yàlla mu ni ko boo ci dugalee safaan mu posone la bu doyul nga lab sóopee nga fër waaw moo tax jàmm yàlla bu dofloo nit daf caa dugal lépp xamuloo nit xel mi mu jox jàng mu ni ko jàng it boo ci dugalee lu ci bokkul mu posone boo ci jëlee lu doyul làpp boo ci jëlee lu ëpp mu fër la xamal ni jàng ba gëmatuloo dara dañ caa dugal lu ci bokkul bakkan itam mu ni ko féex boo ci dugalee lu ci bokkul mu posone la waaye koo xam ni foo ko romb muy féexlu jeex na jeex na koo xam ni foo ko romb muy féexlu jeex na waaw yooyu dal posone bakkan waaye bu ca bakkan amul lu doy itam dal di bu ca amee lu ëpp it fër tawazun bi dal dikk nag waaw wa aqimul wazna bil qist yaa koy seet yaa koy seet ñu ne ndax ba faw ndax ñépp mën na ko mu ni ndax ñépp mën na ko ñu ni déedéet ñépp nag du ko mën wante itam yàlla wàcc na ba mu waxee nit defal li nga mën waaw yàlla wàcc na bi mu waxee ni defal li nga mën wante defal li nga mën mag ñi nanguwuñu ko nun rekk noo koy jëriñoo wante mag ñi nanguwuñu ko defal li nga mën mag ñi nanguwuñu ko nun rekk noo koy jëriñoo ndax nun danoo jàpp ni saraxu yàlla la te saraxu yàlla kenn du ko delloo mag ñi jàpp ni fiir la te fiir dañu koy wattu Cheikh El Hadj ne li ma téere yi may yëpp ni yolomal nañ ko du ma ko def ndax su ma ko defee dugg ci kam li téere yi woyofal yëpp ku ko def rek dugg ci kam waaye nag itam ah kii mënul moom na ko jàppee sarax waaw waaye mat ñi daal nee ñu fiir la waaye itam foofu laa mën a yem ah sa xarit ñëw nga def lu kóob sa buur ñëw nga def lu kóob sa janq ñëw nga def lu kóob xam naa yàlla dina ni pat waaye dina xam lu xew waaw ba tax mag ñi ne ñu fiir la du ñu ko nangu mukk waaye daal ah ku mën nag def la mu mën ndax Sayyidatuna Aïcha moo ko waxoon yonent bi yonent bi def ko ni tàngaay bi metti na désert bi metti na yàlla may nanu nu nu wàññi sunu julli mu ne ko xanaa yow nga wàññi man tayiwuma mu ne ko saraxu yàlla bi nag mu ne ko ah yàlla de kenn du ci teg baat waaye nee ko tayiwuma waaw mhm. mu mel ni kon nag mag ñi daal bu nu yeboo rekk comme àgguñu ci seen kattan nu yem ci sunu katt te bàyyi ak seen kattan ñu yóbbaale ñu ndax ñoo xam naka la ñuy defe te sayid abdul qadir al jaylani gu rëy ga ba mu waxee ni duma génn àdduna te ñaanuma ñi nara ñëw yàlla yombalal leen ñu jariñoo ndono bi maa cay defe lu ma mën ba mu defee ba àggal wóor na ko ni boromam dina ko tontu baat ba jikki jikki rekk addu ni ko waxal li nga bëgg ñu def ko mu ni pat mu ni ko doo wax li nga bëgg mu ni ko bu ma ko dee waxit de duma la ko wax yow mu ni ko nooma ma xàmmee mu ni ko dama dégge nopp sa wax te yàlla su dee wax ak man sama poor yi ñoo koy dégg uh-huh. waxin la ci ni am na lu mag ña xam ñoom rekk ko xam kon nag boo ci àggul nga faf nekk njaboot rek moo gën a noppale nag waaw leneen loo sos rek du sotti uh-huh. leneen loo sos du sotti daa ne ñu sëriñu lawbe ba dafa tuub rekk am fukki fan dal di wut xaat taalibe taalibe it nangu lool ndax ñoog mooma bokkoon démb dañuy yomba d'accord ñëw rekk ni ko yow ëpp nga sëriñ wala yu nga mu ni waawaw ñu dem ba ca ëllëg sa ñu dellusi ni ko yow dal ëpp nga wala yu nga mu ni waaw ñu dem ba cëllëg sa ñu ñëw ni ko yow ëpp nga léegi xut bu yonent nga mu ni waaw ah ñu dellu si ñëw nag ni ko léegi yooyu yëpp passé ko mu ni tekk nag ñu ni ko léegi yow yàlla nga mu ni waaw loolu mooy la cay tegu du baax waaw loolu mooy la cay tegu du baax nga xam fa nga mën a yem rek maa ngi koy wax benn mbokk talibé boo xam ni noo bokkoon daara waaye loo ko wax mu contre ko ba faf contre Cheikh El mara day taali alko te kat ci kër gi leen ko yare ci kër gi leen ko jàngale ba mu xëy ni dëng dëngaanal waaye xëy rek weddi ñëpp ba jël bagage dem yoonam boobaak léegi mat na ñaar fukki at ak lëf bërki démb ndeke ñëw na ndakaaru jaar sama kër làmb bunt ba fekk ñu tëj mu bind ci benn kayit taf ko fa def ci ni yonent bi mësul tëj buntam ah xale bi ñëw benn góor ko fi taf de ma dindi ko bu jëkk ma ni ko dina dellu si mu ni ma waaw ma bind taf fa ni ko bu ñëwee na ko jàng ma def te ni ko yonent bi dëkkewul woon fan résidence waaw waaw nekk ci dëkk boo xam ni boo tëjul sa bun doo xam koy ñëw ci sa njaboot a ah, doo xam kuy tëb marat day tali li xew ma ne ko wax ko ni ko rek moo nu gënoon leew jamono wallaay ah waaye tabarkalla mag ñi yem ci ñoom noflaay la waaw ah. noflaay bu rëy rëy la kon nag tabarkalla def nañu seen warugar bàyyi nañu ak ku leen ameel seen lépp yal nu yàlla taas ci barkeem te yàlla yi tamit bàyyi ko ci sunu kanam yàlla mottalil ko yéeneem ci njaboon ci tabarkal e eh, dafay faral di wax ni man buntu kër gi ma gënal moom Cheikh El Hadj Abdoul Aziz dafay wax ni buntu kër gee ma gënal ma toog fa ku bëgg a yàq du ma la bàyyi nga dugg si waaye Serigne Muniru daf daan wax ni ki toog ci buntu kër gi te léeg-léeg mu jóg lalaat néeg ne am na ku mu bëgg mu am jàmm waaw nun rek la bëgg nu am jàmm waaye boppam taxul fa tabaarakallaahu nu gise ko noonu jàppe ko noonu gëme ko noonu ñaanal ko yàlla mu ñaanal lu yàlla te nu bañ a tëdd nelaw ndax kat bu nu ñaanalee yàlla ba noppi ku amoon tool war nga ko yokk ndax xaj na ci waaye itam dem tëdd dafay tuumaal kilifa baaxul ndax yàlla ku tëdd du ko defal dara lu bàyyi ci xel maa ciy waxtaan ak Serigne Abdou mii ci seen wàllu fédération bi ma ni ko nu ngeen dégge jamono mu ne xam naa ku doxal diine te développé wuloo réew yàq nga moo tax diine kese kese yàlla mënu ko dégg fal yaabudu rabba hadha al bayt alladi ataamahum min juu wa amanahum min xawf ki ragal jaamu yàllaam du sotti ki xiif jaamu yàllaam du sotti waaw te na ragal goo xam ni nit kee ko yóbbee boppam am na xiif goo xam ni nit kee ko yóbbe boppam ndax at mu metti ma mag ñi dañu ñëw ci Cheikh El Hadj ni ko réew mi dara amu fi mu ne ah, xam naa bu fi dara amul day warlul leen ma ma dund ren ba déwén ma warlul leen ni danaa lekk ren ba déwén loolu rekk am solo xamuloon ni xëy xëy wuti dañu ko xewwil waaye dara gënu ko dañu ko xewwil waaye dara gënu ko bu dee boo amul salaire rekk tëdd di xaar salaire waaw kon picc tane na la sànq tane la xorondom tane la waaye bu ñu xëyee rek wuti ndax xam nañ ne xaj nañ ci wërsëgu yàlla waaw xaj nañ ci wërsëgu yàlla waaye kii rusoo wuti kay moom dafay tëdd rek tabarkalla ndax rus naa wuti mu mel ni kon nag wax na ci alquran nee na nattu ak crise ne jaam lañu maa leen di yebal ci seen moroomu jaam waaye suñ ñëwee nag ubbil sa néeg ñu dugg fa wante bul ubbi mukk néegu yàlla sa néeg nag ubbi ko ñu dugg fa léeg-léeg jigéen ji seet li defoon suukar si ah, suukar de manqué na léeg-léeg mu seet la defoon kafe ni café de manqué na ayul ndax sa néeg la waaye néegu yàlla bu fa crise dugg mukk te mooy sa xol crise bu duggee xol gaañ borom ndax dootul def dara waa def Cheikh El Hadj daan wax ni tubaab yi ñoo nu gën a dégg alquran ñoom ñi nelawatul waaw ñoom ñi nelawatul te géej gu nekk ñu dagg ko tabarkalla tabarkalla ñoo nu gën a dégg alquran ndax alquran yemul ci rekk ngàbb sa kurus di sikar ba bërset yemu ca alquran lépp ngi ci waaw lépp ngi ci xam naa bu nu ko déggee noonu dina nu mën a dimbali sunu kilifa yi fa tabaarakallaahu bésu teranga la bésu barke la bésu leer la yal na nu ko jëriñoo président itam yàpp le na ñi mu yebal la mët nañu ndaw wante bi ñuy laata ñëw lépp lu mu daan def ñëw na ndox mi doy na courant bi doy na dund bi doy na bokk yi taxaw pour sécurité jaamu yàlla yi doy na te it sant teraanga mooy mën a tax yàlla barkeel ko kon nag na ngeen ko jottali cantu kilifa gi nu bokk ndax kii toog ko jur ci deret jur ko ci diine moom itam fa mu toog doom la ci moom ci deret doom la ci moom ci diine di président boole ci yéen ñi ko jàppale nu jàppale leen ngeen jàppale nu nu bokk jàppale sunu kilifa gi toog ak kilifa yi bokk ak moom ndono lool rekk mooy li nga xam ni moo am solo ndax góor gu dogu góor gu dogu góor gu dogu te ñaawul njort góor gu dogu te ñaawul njort góor gu dog te lalul lu ñaaw góor gu dogu te bëgg lu baax lu ne mën na ko waaw ba tax na nu taxawe noon rekk bu nu sunu kilifa diine sikkul sunu kilifa àdduna sikkunu sikkantewunu àdduna sikkunu nu xaarandi nag aljanna nu xaarandi nag aljanna dafa fekk àdduna nag nattu du fi mën a ñàkk waaye leeru yonent bi mooy tax nattu bu ñëw nga man ko yenu ndax nit mbaa xam dana àgg ci mu soppi nattu muy teranga waaw léeg-léeg nga sibiru ba xaw di toskare fa nga tëdd xale bu tuuti ñëw ni la nanga def nga ni ko maa ngee tane mettit wa soppeeku di teranga waaw moo tax kilifa rek moo am solo dañu wax ni yàlla dafa woo rab yi ni leen nattu mënul ñàkk kenn ku ne na tànn nattoom ma def ko gaynde ni ko man si biiru laa tànn mu ni ko lu tax mu ni ko dafa metti te comme borom doole laa te bëgguma tooñ ci sama doole waxtu wu nekk naa si waaw Mm-hmm. waxtu wu nekk naa si biir moo tax foo ko seet mu ngay ëbbali bët ji xonq cooj mënatul tooñ balaa rëb bi xiif waaw ne ñu lëg jot jóg ñu ko mayit jox ma sot mu ne ko lu tax mu ne ko dama mën a yàq tollu jàmbur bu ko defee fu ma nëbbu di yàq rekk tissooli borom ni ma ngoon waaw rekk dàq ma ma génn waaw ndax ma it bëgguma yàq sa liggéey bukki ñëw mu ni ko yow ban feebar nga bëgg mu ni ko xir ñit ñi ah mu ni ko wàjjile yow xir nga mu ni ko wàjjile damay borom njaboot waaw moo tax foo ko fekk mu nga xir ñit ñi du xiif mukk ci kaw suuf wallaay wallaay xër ñiit ñi am na ñu ko xamul ci wolof mooy fër waaw ba tax na tabarkalla tabarkalla yàlla mane na boppam mane na jàmmam waaw li ci des nag mooy taxawaay am yitte nu ngi gërëm ñëpp ci turu kilifa gi ñu ngi gërëm ñëpp ci turu njaboot gi ñu ngi gërëm ñëpp ci turu ñi fi daje ku ne war na gërëm sa morom waaw ndax daje teranga la daje teranga la tabarkalla tabarkalla tabarkalla yal nañ ko fi yàgg a def lu ci soxla yal na ko yàlla faj kilifa yi fi ñëw yépp kilifa diine kilifa gouvernement ñoom ñépp yal na leen yàlla boole jàmmi biir ak jàmmi biti waaw loolu rekk mooy li am solo ah li ci des nag ñaari yëf la moo di waaja dañ ko ni cëy sa jabar ji mu ni bu kenn dox sama diggante ak moom jeex na xamuloo ni bu ñu doxul sa digganteeg sa mbokk doxuñu sa digganteeg sa wëllëre mu a waaw moo tax mu ni bu kenn rekk dox sama digganteeg moom danaa xam fu may jaar ba yëpp a tax tabarkalla tabarkalla ba moo tax rek loolu yàlla na ko yàlla defal ci suñuy diggante ak su ci amul it gàccaam waaw su ci amul gàccaam dinaa di wax ni soo demee ba gis yenn ñaaw ñaaw yi ñu bokk diine di ko defante da ngay defee ni diine ja dafa am échec fekk amul échec euh, xel yaa wëlbatiku waaw xel yaa rek moo wëlbatiku ba tax na kon nag yenn yàlla rafetal xel yi ah yal yàlla yokk muñ yi yenn na yàlla may nu itam nuy am kattanu jëf di am bu dee nun baykat yi nu am taw bu dee jaaykat yi ñoo am lu ñu jaay bu dee weccikat yi ñoo am lu ñu wecci bu dee doxkati yiw yi ñoo am yiw wu ñu dox lépp yal ko yàlla rafetal jàngalekati daara yi yal na yàlla yokk seen leeri daara jàngalekati jikko yi yal yàlla jox leen kattanu yéwénal jikko yi waaw loolu rek mooy li ci li am solo li ci des nag nu bàyyi ko nag ci loxo yàlla parce que àdduna du nekkaa jënd mukk dañ fi jaar rekk kemtalaayu la sayid Cheikh Ahmad Tijani yi waxoon nee na ki la ci këru nee na doya di nekk te boo soloo ñëpp yéem ko ki la ci këru doya di nga nekk nga tëgg fa wurus takk ko ci la ci këru doya di nga nekk nga togg fa maafe lekk ko ki la ci këru doya di nga nekk takk fa soxna mu amee la sa kër ki la ci këru doya di nga nekk jox la ay xarit boo dee waxtaan ak ñoom doo xam ndax ay am na nee na kooku war nga xam ni boo ko fekkee ca kër gudul gu doyadi nee na am na lu mu mane waaw loolu rek mooy li am solo kon nag nu jàppandi ci lii rek ba nu koy fekki ci lële la te nun nun ñi ñemewul mu gaaw nag nu ñaan rek yàlla bu mu gaaw waaw fa tabarakallahu loolu la góor gi waxoon ni nu wax leen ko ku ne fas ko te def ko programme nag waxuñu ku nekk jóge fi rek bàyyi ko noonu kese kese waaw ñu sant ñépp nag kilifa diine yépp lu ne indi nañ ko fi lu ne président waa këram lu ne indi nañ ko loolu ci barke yonent bi rek la xaj kon nag yal na yàgg fa tabaarakallaahu kilifa yi yal na yàlla may leen ñuy boot njaboot yi ba faw njaboot yi yal na yàlla may leen xel mu dal ñuy nangu mbootaay yi ba faw bés boobu rek tabaarkalla moo nu fi dajale xam naa ñëpp soj nanu waaye nu it soj nanu tabaarkalla tabaarkalla aayul nag kenn ku nekk ci yéen jàngal ko fatiha bu sell falaqeeg naasi bu sell ñetti salaatul fatiha yu sell ñaan yàlla ci yàlla def soxlaam ak soxla njaboot yi ak soxla réew mi ak soxla kilifa yi mu ko séqal te yàlla boole nu wattu ci zaahir ak ci baatin su noppee Serigne Abdoul Aziz Dabba gërëmal ko ambassadeur yi fi nekk mu ñaana leen yàlla ñu dellu nag ca jàkka ya waxtaane mbiri yonent bi ba fajar ak jàmm kenn ku ne jël sa waruwaayu teranga dellu ci sa njaboot ak jàmm te mu ànd ak fa tabarakallahu waaw ay ca tàccu leen nag mel ne nag itam ñu bàyyi kilifa gi mu di ministre Medoune Fall mu wax li ko président wax mu wax leen ko ak lu àdduna lëndëm lëndëm fii président ay soppe rekk la fi am Claro que sí.